Euh, notre secrétaire général euh, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République teew fi a lancé dafay ñëw lancer euh, atelier préparatoire forum bi Wajedef du mois de novembre sur le bilan d'État. Madame xayma code bu bees fi depuis 2016 naka la avancé ndax avons na ay rëkk-rëkk ndax am nga renforcer wala changer donc motax ñu woo woon acteurs yëpp muy société civile maire yi euh, société minière yi ñepp ñu yëngu ci secteur bi ñu tok ñu waxtaan ñu say euh, saytu xayma tamit euh, code bi euh code 2016 bi ni muy doxé depuis lors. teel bi la amna 6 ateliers thématiques fi ba vendredi dañuy liggéey ci thème yu bari yu jëm ci. euh fonds yi nga xamanté code minier bi def nako fi depuis bobu depuis 2016 euh, fonds yuy jàppale gox-goxaat yi fonds yi euh développement local ak euh, fonds yi jàppale secteur minier xool aussi environnement des affaires nak la euh, investisseurs yi duggee ndax loi yoyep permettre na euh, secteur bi dox ni mu waré xool aussi nationaux yi ñi nga xamné ci dëkk bi lañ dëkk am sen société nak lañ mëna duggé ci secteur bi aussi waaye waxtam ci mbirum exploitation artisanale ni ñuy waxé orpaillage nak lañ ko gëna mëna euh, ñongalé